abonnez-vous ci sunu chaîne FTTV Sénégal la chaîne des patriotes saa su ne ngeen di am ay xibaar. ñu wax ci walu procès bu ñel nak député yu purilé di Mamadou Niang ak Massata Samb ñoom itam ñoo ñuy wax ni rek dañ ko daal dakk dàq rek biñu daxé procès bi waron am rek ci diggante Ousmane Sonko ak Mambay Niang ba juroom ñetti fan ci weeru ma bilee cour d'appel bu ndakaaru daal dinay jël dogal bi nu mel moom itam jëm nag ci diggante nag ñaari député yi di Massata Samb ak Mamadou Niang ginnaaw procès bi rek daal nañ koy dàq kon ba fukki fan ak juróom ci weeru may bile mu nekk nag ab semaine rek moo ci daal di jiitu ñu daal di amal nag ginnaaw rek procès bu Ousmane Sonko ak Mame Mbaye Niang ci noone sax ñaari député yi bokk nag ci groupe parlementaire bu opposition bi daal dinañu rek nangu lañ leen toppee foofe nag ci tribunal des flagrants délits ginnaaw bi ñu dóoree rek daal di sonal ki nga xam nag moom mooy seen naataango bii di Amy Ndiaye ñibbi ci noonee rek ñu daan daal di leen daan nag juróom benn weeru kaso.